mbokki internet yu info 7 ñoo ngi leen di nuyu ci dëkk bu sell bi nga xam ne moo di Touba rawatina fi nga xam ne moo di ancien garage Euh, génn bi nga xam ne moom lañu ñu génn nag tey li ko waral mooy li nga xam ne moo di ñaawteef ba nga xam ne ñu ngi ko doon euh, dégg ca fa nga xam ne moo di lew na ñeseen góor jigéen gi nga xam ne ba mu ñàkkee bakkanam ñu indi woon ko ci dëkk bu sell bi nga xam ne moo di bëggoon ko fee denc waaye ñooñu tam gàntal li nga xam ne moo di euh, seen i pexe ñu delluwaat fa nga xamante ne moo di moo di Kaolack Ndangaan ca fa nga xam ne moo di lew na ñeseen daal di ko fay denc waaye askan wa it dañoo génn ak ñi nga xamante ne nii ñoo di kilifa yi ak ñi nga xam ne ñoo di ndaw ya daal koy suli teg ko ca kaw tali ba daal di koy taal fa nga xam ne nag moo di Kaolack bu ñu ko waxee xel yëpp daj fi nga xam ne moo di euh, fi nga xam ne moo di sawiya maam alhaaji Abdoulaye Niass ak fi nga xamante ne ni moo di euh, xalifatu alhaaji Mouhamad Niass borom hubbuhum xasaasa diinihi wa buxduhum bi kufru xayri may na xaasa wala man tadabal al asqa ila sabi imaamil awliya dee leen continuer di abonné tey ba ak cloche de notification bi dana tax lépp lu ñu dugal ngeen teel cee jot. ngay sant la fay. tur la. sëñ Pape Seck bi nga déggee li nga xamante ne nii moo di ñaawteef bi nga xamante ne nii xew na fa nga fa nga xam moo di ndàngaan ak sëli gi nga xam ne sëli nañ ko ba taal ko en tant que kuy wax asadoon laa ilaha illallah lan nga yëg ah waaw loolu day doy na waar mais lañu sant yàlla gën a ñaax suñ suñu doom yi nga xam ne ñoo nekk ndaw te dugg àdduna ñu xam bu baax fu ñu war a mën teg seen tànk d'abord parce que loo gis lu nekk rek éducation la te yi ndax sa doom moom boo ko jëlee yow nekk jullit judd ci yaru ji yow yaa ko ci jéem a tàggat ba jëree beneen yoon boo xam ne boo ko yoon bi yàlla santaane ak yonte bi ak sëriñ su baas yow da ngay a mu mu moytu lool boo demee ne ba mu dëggalu la nag nga doog a dégager ses responsabilités mais loolu moom vraiment moom moom lu ñaaw la daal en tant que jullit daal moom yenn yi moom waruñu ko jël di ko bay bayal si réew parce que euh, euh, baaxul daal. lan ngay wax tam ñi nga xamante ne nii maanaam ay ay parents de élèves lañ ñoom ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy njabootee ñi nga xam ne ñoo di gone yi te gone xëy na tam maanaam bu tànkam guddee it mën ngaa am loo xamante ne nii def nga ko ci moom ba nga xam ne kenn du ko mën a soppi. li sëñ bi wax rek lislaam rek doomu aadama moom maanaam bu lislaam juddoo si njëkkee ci yow mujj ci yow da ngay am jàmm bu baax a baax lislaam rek moo am solo si nda doomu aadama amul lenn lu dul jaar fi say waajur jaar. muy chrétien bi muy musulman bi ku mën di doon ku nekk rek éducation maanaam jaara fi say waajur jaare bu jaaree ci yoon baax rek boo leen royee rek da baax waaw loolu daal laa xam ne moom moom moom te tamit gën ñaan lan ngay tàggoo sant yàlla baax di gërëm sëñ bi di ñaan yàlla Sénégal bi yàlla na ki gën si ñun ni ko sëñ Mountakha waxee rek yàlla na ko suñu borom joxo ki gën si ñun daal tam gën ci réew bi daal yàlla na ko suñu borom dénk ak ku mën di doon ku nekk rek loolu la ñuy ñaan yàlla daal moo am jàmm am salaam maa sant bu baax na ngeen def yéen ngi si jàmm ah loolu de dëgg yàlla moom ñaaw naa ko yàlla ñaaw naa ko trop ndax doomu aadama fekkee dafa ñàkk bakkanam ko suulee xanaa kooku nekkul jullit. góor jigéen la lañ wax. góor jigéen góor jigéen moom mu koy jàppale da nga war a taal a dañ ko sulli ci fi nga xam ne moo di bàmmeelam yóbbu ko ba ca kaw tali ba daal di koy taal ba mu tàkk ba jeex. oh loolu moom ñaaw naa ko trop. donte nit ki ku faatoo da nga kaa war a suul waaye loolu jëf ci bon la kooku ki ko def te ku bon la waaye yàlla na ko yàlla nit ba mu feeñ ñu jàpp ko ndax loolu baaxul parce que nit nit doo ngay mbokkam ñëpp a julli nan waaye comme ça ñu suul nit nga dem di ko suul di ko taal loolu ñaaw na. moom li mu def nag ba dee fekk ko ci tam parce que góor góor jigéen moom suñ borom sax wax na ci li nga xamante moo di alxuraan nee na taal rek mooy li nga xamante moo ci war est ne ñoo def teguñ ko ci ne moo di chariatu non loolu moom teguñu ko fenn jullit moom su dee li xam suul suul si laa xam waaye kam ça ñu sax amoon na fi sax am na ko sax ku demoon fee benn tool noonu a benn jigéen doon xam ma li mu def noonu di for noonu ma dafa moo ko taaloon kooku noonu sax yàq na feeñ na xam tudd noonu feeñ na da taal jaaree rek moo feeñoon noonu. mais est-ce que xam nga ne ki ki nga xamante ne nii maanaam moom lañ taal rey ñu ko de moom dafa dee mais gannaaw bi mu dee nag dañ ne war a su ko suul ci armée li jullit moo tax ñu sulli ko daal di koy taal. Ah, jigéen la moo tax. Ah, ah, kooku gu góor jigéen la. après gars yi suul ko di taal. dëgg yàlla fu mu dara ndax kooku. kooku war a bàyyi ba mu dem si yàlla ba xam mooy lakk mais pas doomu waaw loolu dëgg yàlla def ma dara ñun war a bàyyi rek suul ko ba xam lu yàlla dogal foofu noonu waaye waruñu ko jël di taal waaw Baye Sall bi nga déggee li nga xam ne moo di yëf yi xew ca fa nga xam ne moo di Kaolack ca quartier ba nga xam ne moo di Ndangaan maanaam en tant que kuy wax asadoon laa ilaha illallah lan nga yëg. waaw mu nekk euh, jëf joo xam ne jëf junu junu mën a la ndax góor jigéen moom li ci suñu borom wax dafa rëy ku ko ne dégg nga ko mooy mu ne fépp foo xam si ab góor jigéen jaar na fa tànkam sax ëpp naa jaaraat kon maanaam loolu noonu nekk na jëf joo xam jëf jun jëf jun saluer la waaw ndax parce que góor jigéen moom ak góor ni mu neexee ak li suñu borom def ak tawfeeg gi ci am amoo dara looy def loolu wut bàyyi ko fa dem di dem di topp loo xam si ni suñu borom da koo mosu koo bëgg aussi de heure bu mu xëy tamit ñu ngi koy ŋàññ kon yaakaar naa loolu moom nekk na loo xam ni lu lu lu wóor naqari la ci jëfi góor jigéen ji ci nga xam ni faatu nag ci nga xam ni loo xam ne suñu borom bëgg ko mu faatu ci euh, ñu jëm di ko suul ci armée jàmbur loolu yoon la ñu su kulli ko taal ko waaw loolu loolu wu di apprécier la jërëjëf en tant que enseignant léegi nag li nga xamante ne nii moo di wote mbirum na góor jigéen ca fa nga xam ne moo di ensemble ñu bëri maanaam ñenn ci ñi nga xamante ne nii ñooy ñoo fa nekk am ñenn ñoo xamante ne nii maanaam ba léegi yooyu ñu yàbbi ci li nga xam ne moo di mbir mi ah góor jigéen moom il est moom góor jigéen moom ci fii ci sunum dëkk fii ci Sénégal moom kenn ko banni am na ñoo xam ne nag moom daanaka nungunoo wax nunguñ cee yey nu nunguñ cee yàbbi loolu nag dafa am lu ko dafa am lu nekk ci biir loolu laalu ci biir waaw complexe googu nga nga xam ne maanaam yaakaar nañ ne moo nekk ci biir nga nga jàpp ne lan moo ko waral li ko waral kay xam na ko ñun ñëpp gàncax samp kontaan rek waaw kon yow ban message ngay lancé jëmee ko ci ñi nga xam ne ñoo di ndaw yi. ndaw yi moom li ma di li leen di ñaax mooy su métti métti mukk ba ngeen weddi adduna moo demee noonu yàgg yàgg gën a baax nan góorlu fas jom nu ngoo liggéey bu dara dëpp kenn ku nekk ngeen gëm suñu maam gëm ko Sëñ Tuubaa gëm ko Alaaji Maalik gëm ko ba toll fii ñu ne nañ ci jéem a roy seen xëy xëy tànk wante mënuñu ko sax waaye mais nan roy nekk parce que ñoom ñoo suñu référence jërë ngeen jëf. waaw sëñ bi maa ngi lay fay maa ngi lay siyaare bu baax ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax. tur bi naka la. kii Ahmadou Dieng la tudd. waaw loolu moom li nga wax ni moom wax dëgg yàlla ñun ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax ndax tamit wax dëgg yàlla réewum jullit lañ nekk daal te boo dee xool loolu jamono yonante yàlla loolu la xewoon na fi ba mu fi xewee suñu borom daa wëlbati suuf sax léegi nag ñun en tant que ay jullit suñu borom ruse ñu yonante bi sallallahu alayhi moo tax lu bëree bëree bëri mi ngi xew ñu ba ñuy bàyyi mu sedd moo waral boo gisee réew mu metti mi lépp lépp lu ñaaw lu bon loolu rek moo ko waral moo tax loolu man moom d'accord naa ci ñooñ li ñu def moom wax dëgg yàlla lépp daal euh, foo xam ne nii rek gis nañ fa lu mel noonu nañ doxalee lu mel noonu muy sàcc yeeg lépp lu mën di doon ci lu ñaaw rek ñu doxalee noonu léegi moon gi wàññeeku ci dëkk bi waaw dénoncé gi nga xamante ne nii dénoncé nañ ko ko te moom sax am na ci fi nga xamante ne nii moo di quartier ba nga xam ne fa la dëkk wala fa la am moo di ña ndàngaan am na benn néeg boo xamante ne nii maanaam moom la fa tawaxoon nga xam da koo bàyyi woon espace pour bu dee ñu suul ko fa waaye waa koñ booba tam dañu mu ñu gàntal loolu est que maanaam jàppoo ne war nañ ko mën a bàyyi ñu suul ko ci këram waaw loolu moom d'accord naa moom comme moom maanaam defoon foofu moom defoon na fa këram tey tamit nanguloon nañ ko ko waaye tamit bu fekkee ne dëkk booba tamit dañuy dox xam nga Sénégal moom wax dëgg yàlla ci euh, lislaam ci la ñuy dox moo tax ndax kawlax boo dee xool bari na ay këri diine bari na fa këri diine yu fasantikoo ba ci yoonu murit bi boo gisee Touba Ndorong yoonu murit am na fa kër kon te itam Kaolack maanaam dëkku dëkkub diine la daal dëkkub diine la dëkkub lislaam la wax dëgg yàlla waaye nag moom man daal li ma jàpp mooy avant loolu moom waroon nañ ko mën a génne dëkk ba man daal loolu laa gisoon waaye buñ ko seetaanee tamit ñuy taal yooyu mënoon mënoon naa ñàkk daal moo man daal li ma gisoon mooy ñu woon ko dëkk ba avant tout comme moom tabaxoon na fa këram ñàkku kon xamoon nañ ko am na ñoo xam ne tamit ñàkkoon nañ ne boo Sénégal am léegi li ko yàq mooy dañuy gis lu bon di ko bay bayal nga gis tey jii nii fii boo fi jàppoon ab sac léegi wala koy def lu bon da ngay gis ñoo xam ne ñoo koy faral naan bàyyi leen koog est-ce que tam askan wi am nañ droit de gis nit ci ab koñ rek ñu ne diw góor de jigéen la est-ce que ñoom amul tam loo xam ne daf leen a dooleel ba nga xamante ne nii képp koo xamante ne nii tey jiñ nga li nga xam ne moo di góor jigéen yow mën nga cee dem fi nga xam ne moo di ndungu siin waaw maanaam maanaam maanaam loolu tamit loolu tamit lu jar a xoolaat la parce que jamono ji tamit xaw naa doy waar euh, boo gisee maanaam tuuba gii lu bëree bëri ñu yu mel noonu moo tax colin geek yu bëree bëri fi mu yaa ngi koy dégg xam nga nit moom mënoo ko gis muy sol li muy nga ne kii góor jigéen la wala nangam war nga cee am ay preuve yu leer nañ waaw ba gis maanaam bu fekkee bett nga ko moo xam ne muy def naka su dul noonu moom nga xam ne kii moom la loolu moom jar naa dina wasa ndax euh, góor ak jigéen rek li gën a yéeme góor ak jigéen rek suñu borom dalaa wax ne la maanaam boo ko dee jiñ da nga fekk ñeent ñoo xam ne nii ñoo ñoo ñoo ci tasee fekk ko fa mu koy defee waaw waaye nag bu fekkee dañ koo gis muy col col gu kii ñu daan ne góor jigéen la nangam nangam. non ñoom ah ñoom ah dañ ne am nañ ci lu leer ne moom la ndax kër ga nga xam ne fa la nekkoon moom lu ci bëree bëri fa la ko doon defee ndaw yi ñoom nee nañ li nga xamante ne nii maanaam moom lañ ko waxal amuñ ci loo xamante ne sikki sàkk la dañ ci am lu leer. waaw man daal d'accord naa ndax euh, li ñu bañ Touba gii ba mu ñëw fi ñu génn ko fa ñu dem Kaolack googu man d'accord naa ci loolu ñu def parce que tamit wax dëgg yàlla ma la wax rek réew xam ne nii Serigne Touba mi ngi fi maam El Hadj Malick moom mi ngi te Kaolack moom ku ko xam Euh, ñun ñi nga xam ne jàng nañ as tuuti xam nañ ne Kaolack moom dëkkub diine la dëkkul islam la wax dëgg yàlla. léegi nag Kaolack man li ma jaaxal tamit am lu ma jaaxal ndax lu mel am na ay jamono yu yu xaw a mel ni xewoon fa bañ naan ceeb école lañ leen fekk ak yu demee noonu. kon nag maanaam bu fekkee diine ga ñuy woote ñoo tamit dëgg dëgg dëgg ña nga ca moom ndax euh, am na koo xam ne mën nañoo tudd turam muy Ahmed Ahmed Ahmed Cissé bi mu fi waxee ay ay mbir dañ ko jàppoon dóor ko te kooku ab jullit la du góor jigéen du dara kon ba loola amee ñoom. ñoom kilifa ya avant loolu ñoom waroon nañ cee mën a jot kon ñàkku ne li ma la wax rek mooy xamoon nañ ko ba pare bàyyi ko fa bàyyi ko ci li ko neex léegi nag buñ ko bàyyee ci la ko neex ba mu dee ñu naan dañ koy taal su fekkee ñoo ca bàyyi woon gis nañ ko taal ga moom waroon nañ ko mën a bañ a taal dem ba ca àll ba ñu suul ko fa waaye nag góor jigéen moom yal nañ ci yàlla musal daal wax dëgg yàlla. lan ngay tàggoo sa mot de la fin. waaw maa ngi leen di siyaare di leen di leen di leen ndokkeel di leen wax ne maanaam li ngeen di def nii rafet na trop trop trop parce que lii nii dana tax ñu bëree bëri xam tey bu fekkoon dafa am rek ngeen di teg tey te Touba moom ñëpp ak mën a yem maanaam di topp ay information moom daanaka dafay bërul waaye lii ngeen di def nii daal dana yee ndaw ñi waaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax baax di leen ñaanal seen liggéey bii dem ca kanam ak kanam ci barke Seexul Xadim waaw ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di leen delloo nuyoo bi tur bi naka la Euh, Modou Khoule Touba Darou Manam. sëñ Modou gannaaw bi nga déggee li nga xamante ne nii moo di euh, góor jigéen gi nga xam ne maanaam faatu woon na ñu andi woon ko ci dëkk bu seele bi nga xam ne moo di Touba waaye ñu gàntal la nga ne moo di suul gi ñu ko fi bëggoon a suul ñu yóbbu ko Kaolack ñooñu daal di koy sulli daal di koy taal saw naqar ci moomu mbir fan la toll. maanaam loolu moom ku di am euh, doomu aadama rek wala naqar waxuma jullit nag ku di doomu aadama rek laa war na laa naqari waaye nag maanaam lu jëm ci wàllu jigéen moom ñun dañ cee am dañ cee amut ay kàddu yoo xam ne a wax ki daal fekk yàlla da laa nga nekk góor mu sàkk jigéen maa ah nga bëgg a sa bopp def ko jigéen ah wax dëgg yàlla nag loolu kenn rafetlu ko soo wàcceeb liggéey tam ñu indi la ci dëkkub lislaam bu fekkee ne lislaam mu fay dox kenn du la fa denc maanaam nag dugal la foo xam ne bii dañu denc la fenn ñu lay soli nag moom itam loolu rafetul ndax da yàlla doo nga lakk waaw loolu daal moom laa ci xam ne ma ngi leen di jégalu bu baax gis ngeen ne daal biñ ko sullee kon dañ leen a war na yet delloo seenum néew yoon delloo leen ko ne leen daal seenum Euh, sant yàlla di leen gërëm yéen tam ci seen reportage al leen yàlla jàppale yéen ah waaw loolu moom ñu ngi sant yàlla bu baax moom di jot si yonent bi ñaan sëñ Muntaxa yàlla yàggal ko fi waaye xam nga kooku maanaam góor jigéen moom ci boppam wax dëgg yàlla maanaam tàggoo ma ànd naa loolu ndax di góor jigéen moom moom moom euh, daanaka moo doon wax maanaam comme que moom moom warees koo suul ci ay armée mairie jullit te ñoom fi ñu njëkk defee ñoom te mooy maanaam fi ñu demee suul ko di ko suul guddi bu doon lu baax la maam du nëbbat di ko suul guddi comme que armeel jullit la wax ne waree su faa suul maam képp ko wax da ngaa doon góor jigéen. noonu lañ mën a def ndax andi woon nañ ko fa nga xam ne moo di Kaolack ca fa nga xam ne moo di moo di mooy adi këram fa la waxoon ne bu dee ñu suul ko fa waaye askan woowa it dañu daal di génn dagg def am ndiiraan ñu bàyyi ba nga li nga xamante ne nii euh, nit ñi tëdd nañ wala nit ñi euh, maanaam dalu nañ ñu dem suul ko fa nga xam ne moo di armeel yi lew na xam nga foofu bu doonee këram it te mu waxoon ko maanaam bu fekkoon ne dafa nekkoon ca li nga xam ne moom la jullit yi yi di def wala li xam ne moom moom moom la lislaam santaane su boobaa maanaam ndax gisoo ko benn jullit bu dee ñu yóbbu ko fenn di ko fa tuul wala ñu yóbbu ko ci armeel jullit ñu kenn yóbbu ko fa tuul te wàllum góor moo doon loo xam saa boo demee ba doon ko génn nga ci carrément jullit ak même boo ko doonoon maam boo demee ba doon góor jigéen dem ba doon ko carrément yaa xam nga koy boo xasee ba doon ko moom génn nga ci carrément kon nag wax dëgg yàlla moom moom moom buñ ko jëlee indi ko ci armeelu jullit ya yóbbu ko foofu maanaam armeelu jullit yooyu ñu bañ ne duñ ko ko fa ñu delluwaat ko maanaam kaw la gën ko yóbbu te armeelu jullit moo Tuubaa gii nii dong booy ñoom dong ñoo yem ndaxte lépp maanaam armeelu jullit ñëpp ci ak diine la ñuy dund te te ñoom ñoo ñëpp maam ci géeru imaam Maalik dong lañ dong la ñu dox kon nag góor jigéen moo doon loo xam maam saa buñ demee bu doon lu baax la maanaam kenn du ko génne ndax la tax mu faatu kaw la ñu jël ko indi ko Tuubaa Toneu Waar waa Touba ba ñu jël ko yóbbu waat Kaolack googu waa Kaolack nan def dong la wax dëgg yàlla man de wax dëgg yàlla ci sama wàllu bopp taal googu moom moom moom moom ànd naa ca loolu ndaxte maanaam lool dana tax bu ëllëgee maanaam ñoom ñi nga xam ne dañoo doon dañoo bokk ci métier moomee bu ëllëgee dana tax maam ñu xam maanaam ni ñu la defee danga xam ndaxte koo xam maam boo dee dund yaa say say say mbokk ñu ngi jaaxle bis ku faatoo fu ñu koy def kon koo kon maanaam euh, mu dara waaye maam say mbokk ya nga fay bàyyi donc ñoo lay ñoo lay ñoom ñoom ngay jaaxal ñoom ngay sonal dong waaw. lan ngay tàggoo. ah waaw waaw moom macha allah di sant rek bu baax baax moom di sant maanaam ci seen liggéey biir it ma ciy sant bu baax baax ndaxte lii dafa rafet lool ndax it nag wax dëgg yàlla yii dana tax maanaam ndax yi ngeen def ni maanaam di ko jàllale dana tax ba nit ñi mën koo seetaan xam fan la euh, xam fan la jullit ji maanaam fan lañ toll loolu mi mën koo xam wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi lay fay. di leen gërëm di leen sant waaw loolu day ñun dañoo xëy rek gis ko ci site internet yi man daanaka dama xëy rek gis ko ci site internet yi nit ñi di ko coow waaye mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla dañuy ñaan yàlla daal ah yàlla moom suturaam yaatu na yërmandeem yaatu na waaye nag dëkk yi nga xam ne dëkki diine lañ nga xam ne maanaam dañ fay bañ loo xam ne dëppoowut ak lislaam dëppoowut ak diine lu mel ne dëkk bi nga xam ne Serigne Touba daf ko xeex xeex ci lu yàgg a yàgg yàgg ngir diine taxaw fi lislaam taxaw fi lu baax taxaw fi ñoom it lu mel ne Kaolack nga xam ne ñoom it dëkku diine lañ lu mel noonu ñoom it bu ñu demee ba am taxawaay boobu rek mooy que ne état bi war naa taxaw jàppale leen ci lépp loo xam ne luy nasaxal diine la wala lu koy delloo ginnaaw ndax loo xam ne dañoo xam ne boo dëgganteeg moom ay tànk sax maanaam yow. maanaam pour nga mucc rek jafe na waxuma laak loo xam ne dafa nekk ci sa biir kon loolu lépp rek ñaan yàlla état gën noo dimbali jàppale nu ba ñaawteef yooyu bañ a amati ci suñu dëkk diine yi nga xam ne dañuy tuddoo ne islaam lañ ndax inda diina indi laa islaam ndax gis nañ yonent bi salaay salaam dëkk yi nga xam ne kat a yonent nekkoon nañ fa te nga xam ne lu mel noonu amoon na fa na leen yàlla defoon mbugalum yàlla moo gën a metti fop gën a tar lu mel noonu état ñu ngi koy ñaan di ko tàll loxo mu fexe ba dëkk yi nga xam ne dëkk diina lañ nga xam ne sëñ Tuubaa bañ na ko ba na ne lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatool xaraawe inni ahmadu xeex diine moo ko taxoon a ñëw sanc dëkkam bii ah te dëkk yi dëkk bi benn la ci dëkk yi nga xam ne rek moo nekk Kaolack moo nekk Ñaseen moo nekk euh, Tiwaawan moo nekk feneen ak feneen kon ñu ngi ñaan lu mel noonu daal yàlla moom moo xam ndax mbir mi xay na mënuñ caa wax ca cadre booba ndax dañoo yeewu rek gis ko comme ni ngeen ko gisee waaye le problème mooy daal ñu ngi gën a ñaan état bi mu taxawal ñu ci ñaaw teef yooyu mu jóge ci réew mi. est-ce que bu ci doon taxaw tam maanaam ndaw yi danañ dem ba nga xamante ne nii pexe lañ ci amut ba tax ñu ñu xëy tey di fayul seen bopp te loolu tam lan la mën a jur ci li nga xam ne moo di réew mi pour en cas bu lii jaale waaw man li ma gëm li ma yaakaar mooy état bi gën a taxaw ci soxlay ndaw yi rek ci ñu xam seen diine xam tamit maanaam am ndax lu ñu bari ñu ngi def ay ñaawteef lu leen ciy dugal mooy tey néew doole wala ñàkk xam. ndax nit néew doole tam euh, jar na nga maanaam na jaay li nga xamante ne nii moo yee moo di moo di sa ngor. noo jëru ko ndax euh, diine moom maanaam bu nekkee ci yow rek mooy li ma rek ne la éducation de base maanaam am na ñoo xam ne fitu xalaat ngóor jigéen sax amuñu ko fitu woowu sax amuñu ko waxuma la di ko def. waaye nag maanaam dafa toll jamono moo toll foo xam ne fi nekk nii kenn ku nekk war ngaa taxawaat ndax kenn ku ne ab sàmm nga te état gannaaw moom moo jaboote ñëpp mooy sàmm ñëpp moom moo nu war a jàppale sàmm lañu ba nga xam ne wax dëgg yàlla ñaawteef yi dana jóg ci xale yi dana jóg ci xelu xale yi ndax wax dëgg yàlla ku am ndey am baay juddoo ci réew mu ñuy wax Sénégal nga xam ni ngor ak diine fii la samp baax wax dëgg yàlla ñu dem bay wax ay góor jigéen ak yu kenn xamut. loolu moom bu nu tiitalul ku mu tiitalul rek da ngaa dof ku mu rek doo nit. lan nga tàggoo sëriñ bi. waaw di leen sant di leen gërëm daal di ñaan lii mu jóg fi ba faw te état mi nga xam ne moo ko mën a xeex jàppale ñu ci ak ñi nga xam ne nit diina lañ ñu gën a jàngal ndaw ñi gën a yar ndaw ñi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf. yu info 7 comme niñ leen ko waxee woon noonu rek la demee gis ngeen li nga xamante ne nii moo di euh, liggéey bi bañ ko dooree ci ngoon ba léegi dem nañ ci ñi nga xam ne ñoo di askan wi ngi nekk ci dëkk bu sell bi nga xam ne moo di Touba seeq ak ñoom li nga xam ne moo di waxtaan ci li nga xam ne moo fi xew fan yii yëpp ñaar ñoo gisaa fi nga xamante ne nii moo di Kaolack rawatina tam fi nga xamante ne nii moo di ci biir Sénégal moom la ñuy waxtaanee mooy góor jigéen gi nga xam ne bi mu faatoo ñu andi ko ci dëkk bu sell bi nga xam ne moo di Touba ñooñu tam gàntal li nga xam ne moo di seen i pexe ñu dellaat ko ca fa nga xamante ne nii armel ya nekk ca lew nañu seen waaye bi ñu ko suulee ndaw yee daal di koy suli yóbbu ko ca kaw tali ba daal di koy taal mu mel ni lii lañ leen jëlaloon fi nga xamante ne nii moo di euh, ci ancien garage euh, bu Touba euh, lii nekk na loo xamante ne nii maanaam moom lañ nekkoon di ci dox ci fi nga xamante ne moo di dëkk bu sell bi nga xam ne moo di Touba Mbacké dee leen abonné tey bés cloche de notification bi lépp luñ dugal ngeen mën cee jot Kéba Diallo moo nekk ci caméra bi Sawru moo nekk ci micro bi suñ mi borom nañ yàlla defal jàmm ba suba ak